assalamualaikum wa Sénégal assalamualaikum wa diaspora man dig Kara may ñew di waxtaan ak e yeen ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bako toba be bi convoqué bur yàlla day ko ca bake an ko wa waaja tukki fawo ila mendar mbake mua cerna munyo nan kade mal ma dar sabara modal newa waktu sama dem lek cerna kaji doan fandar dem fai nora gai le ngar tangga faau tangga wotar nyonan bidel senan kokar modal lawak bambane ko dosen mara mane ngako lang mawakan fatau mako tesamai wak hamnanu ko sering bine ko damal tok desan cotai banyak hamna tai kepokoi defar ko bak ko ne mala defar canyari ra kaya candar sëriñ Massa Ka wax na ko sëriñ Mbay Jaxate wax na ko sërëñ Mbay Jaxate wax na ko Baay Moodu Kara waxaati ko li la ne woon wax sigi taxaw taxaw de wax ñun ñépp mboolem lan fe wax yal na na doon ay dexe wax jarama Seex Moodu Kara lampu ngëneel bi a ko taal leeral nga réew mi ay kamal yàlla nga dolli baraxe Sëriñ Tuubaa amul morom ku am morom ay sa borom yàlla ko def muy suñ borom ñu koy kennal ba àjjana الحمد للحق المبين من كون ولي به على الكتاب المستبين مع الجميع إني أمين من برام دار نوريني ña yàlla baaxe ña la gëm baram daaru kenn nga mam baram daaru noorey ni yàlla baaxe ñoo la gëm mambaram daaro màgg nga mambaram daaro norey ni ñi yàlla baaxe ñoo la gëm mambaram daaro sikoore yàlla ak sa barke ñoo la seet Tuuba jërëjëfe Borom Tuuba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul gàcce ngaalaama Cheikh Ahmadou Karam Mbàkke Noreyni sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér jaarama borom waaw lii tey nga xamante ni wax nañ ko ci madda bi olof bi olofal bi sëriñ Modou Karam Mbàkke moo ko bind mooy bañ tuddee ñaari ràkka yi Seydina Ousmane Ndar ci la ko Cheikh Ahmadou Karam Mbàkke bind tay mu doon olofal bo xamanteni ni gindi na ndaw ñu bari ci li nga xamanteni tay moy olofal bi nga xamanteni ni année quatre la tay li lañ leen indiloon mbokk yi nga xamanteni ñoo ñi ñuy ndax sëriñ bi dafa am fum jaar ak nasarani fam jaar ak nasarani nak moy bañ wolo sëriñ Touba te ku tedd ki du jog ci lu ndigalu boromam bañ ko wolo mu am ci ndigalu boromam ci la yónnee maam Thierno maam Thierno jiitu ko fa doon jox tubaab ba leetar ba te ba mu joxee tubaaba ba leetar ba tamit da koo ne sama loxo ak sa loxo te ka ma yónni bu ma nee woon ma wañaar sa nopp sax ma wañaar sa nopp borom daaru demu ci woon lu dul ci ndigal moo tax tey taalif bi ba ñëwee indil ko tey waa Sénégal ak waa diaspora bi ñu dubbeewaat ko jëlaat lépp jëbalaat ko maam Thierno Noreyni moo tax ñu jël ko indilaat ko jaarale ko ci maam Thierno Noreyni ndax lay démb rek moy tay mo ngi sant wa senegal di sant wa aduna borom daru wa borom daru mo nekkon ka nga xamanteni mom leppam serigne touba la wa mam tierno serigne bi moko ne ba ba xey ne ko bayil mam tierno musuta jóg ak boromam borom daru tay nek na nit ko xamanteni daru musi juma jam fa taxawal ñaari yon la tok jëlul ndox jàpp te ba mu amee ndox fay na ko borom daaru nekkoon na koo xamante ni sat altine comme tey da daan nekk ci laylatul mawlidi na laylatul mawlidi na nabi mooy guddi gàmm borom daaru na nekkoon na koo xamante ni ku farataaloon sunna la borom daaru nekkoon na koo xamante ni ak ndawam yëpp ba ci magam lépp Serigne Touba ko jël jox ko waaw borom daaru nekkoon na ku wéetal yàlla ba tax moom doomam yëpp. saxaaba yi la leen tuddee yoonu murit tey bu sosoo borom daaru muxsi moo tax waaw te moo tax ñun bu nga xamante ni suñ borom moo ñu féetale ci borom daaru moo tax ñun foofu dañ fa être fier te féetale kooku noonu ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noonu ci la ko jaarale moo tax duñ ko wute benn yoon fu ñu woo ci maam Thierno rek dañuy am kontaante ak sawarte pour dem fa. waaw sëñ Modou karaa li mën a wax ci moom bëri na ndax générosité na am na yërmande ci nit te mbaax gi foo ko takk rekk weesu na ko boo xoolee booba léegi ndaw ñi ku ci nekk rek Kara karaa loolu nekk na loo xamante ni dafa daw yaram. ma bëggaat waa Sénégal gën a xamaat Cheikh Ahmadou Kara li nga xamante ni moom moo ngi koy def ci jeunesse su Sénégal ak jeunesse su monde bi àdduna bi ak yi nga xamante ni chaque jour da koy wéetal ak di ko kennal Serigne Touba du ma nee la baayam Seydina Ousmane du ma nee la maamam maam Réma Sey du ma nee la maamam maam Thierno waaye moom fu nekk rek ku tedd ki la wax loolu tey doon na loo xamante ni tey kum yéemul leneen waru laa war a mën a yéem. man nag foofu rek laa ci yem moom tënkul boppam ci lu dul imaan tënkul boppam ci lu dul ixsaan tënkul boppam ci lu dul islaam tënkul boppam ci lu dul jërëjëfe Serigne Touba loolu multi reprise fois comme la ma waxoon rek mu ñu koy wax kon maa ngi ñaan yàlla waa Sénégal ak waa jasporaa ñu gën a xam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni moom li muy liggéey pour avenir u Sénégal sëñ Axma yàgg nañu ko wax waaw waaw sëñ ma yàgg nañoo wax loolu noonu ne sëñ bi moom boowuñu ci lu dul pour ñu nekk ci maam ci toolu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul yi jërëjëf Serigne Touba.